Bon, je pense que la personne choisie pour diriger euh, ce département, euh, c'est une personne boo xamante ne nii xam na ko parce que si je me trompe pas c'est une inspectrice euh, des sports et de et de l'éducation suñu mmh, également donc je pense que dame bi euh, lu ñu ko jox xam na ko mais quand même comme noo koy faral di wax tout le temps rek c'est pas le ministre ou ñi ne ci kow ñoom ñooy ñoom ñooy diriger il y a des hauts yi nga xamante ni souvent ñoom ñooy nekk euh, dans les ministères ñoom ñooy diriger ñoom ñooy joxe ñoom ñooy définir même bu fekkee c'est le président qui définit euh, la politique euh, voilà et tout je pense que ni ñi nga xamante ni soo sont des techniciens ce sont des techniciens maîtriser nañu effectivement même bu fekkee il y a une nouvelle équipe qui est là am na ñoo xamante ni nii yàgg dañ ci ministère bi. xam nañu ni muy demee xam nañu ni muy doxee donc je pense que par rapport à ça du am des changement majeurs mais comme ni ko Grégoire euh, junjee rek man je pense que am na lu bëri loo xamante ni nii dañ ci xaw a yéex tey bu ñu toogee à une année et quelques. Euh, ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy JOJ yi ñuy wax tey ay li nga xamante ni moom mooy réalisation. mais pour man y' a beaucoup de choses à refaire tey bu ñu wax Sénégal amuñu amuñu des infrastructures sportives ça manque. sa mm-hmm. manque c' est c' est un manque criard qui est là je pense que nekkoon loo xamante ni nii dañ ko waroon jël depuis bu yàgg parce que tey doo wax ki si JOJ Sénégal bëggoon na fi organiser li nga xamante ne nii moom mooy Coupe d' Afrique des Nations euh, ñu bañ c' est parce que y' a des infrastructures qui manquent JOJ. moom moo gën a sax daanaka mën nañu wax yaatu li nga xamante moom mooy organiser Coupe d'Afrique des Nations donc ça demande beaucoup de moyens ça demande euh, infrastructure yoo xamante ni nii à la base waruñoon bàyyi ba tey ñuy wax que ni lii dañuy réalité wala lii dañu koy defar wala ñu ko defaraat beneen aspect bi nga xam mooy je pense que man j'ai à à couvrir yenn yi nga xamante ni nii comité d'organisation JOJ bi def nañu ko ñu ngi nag organiser tout le temps des événements mais je pense que la communication fait waaw la communication fait un un peu un peu défaut parce que souvent dañ ko organiser ci ci ci ci des cercles yoo xamante ne nii euh, du ñëpp mën ñëw. man yi ma fekkee yépp c'est des dans dans dans des milieux yoo xamante ni nii. c'est fermé wala bon yu ñu invité c'est c'est c'est limité. donc je pense que aussi ba organiser événement yu mel noonu da dafa war a am. Euh, impact boo xamante ni population bi dañ ci dañ ci seen bopp da ngay gis que ni engouement bi am na je prends seulement le cas li nga xamante ni moom mooy les Jeux olympiques qui seront organisés à à Paris gis nga loo xamante ni tubaab bi depuis des années. les Français depuis des années ñu ngi ñu ngi ciy liggéey. à 100 jours wala à moins de 100 jours de Jeux olympiques gis nga depuis boobu tey à chaque fois. bu ñu duggee 100 jours à chaque fois dañuy def des éditions yoo xamante nii pour parler de ça loolu moom mooy jaay li nga xamante ni déjà de un euh, dafay jaay dëkk bi de deux dafay jaay li nga xamante ne nii moom mooy événement bi nga organisé je pense que euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy au-delà sax euh, comité bi nga xamante ni moo yor JOJ yi je pense que ku ci nekk ci sénégalais wala ñi nga xamante ni sport de manière générale intéressé na leen ñoom aussi war nañu également participer à ce ni moom mooy les JOJ ba daal ci bon je dirais pas Sénégal sax Sénégal bu ci nekk bu fekkee ça t'intéresse wala sax intéresse wala mais ku ci nekk ci domaine bi nga mënti nekk rek nga fexe xool nu ñuy def ba affaire bi euh, tout le monde s'y retrouve nga mu am benn engouement bu ñuy xaar ci ci événement boobule